bañ mën a waxtaani sëriñ bi fekk si ci liggéey bi ngeen di liggéeyal Cheikhul Khadim sëriñ Tuubaa bu ñëwul woon adduna dara du ko jar dëgg la nazaa man yafalu maa yashaa'ul ulum wa yumlaha liya bi kawnihi alim xafistu ma sina an dafatiri fala takun an xidmati bi fatiri aataani al mu'ti bi jaahil Mustafa salla alayhi bi salaamin istafa barakat al quran wal ulum wa qaada yumnaha ila taalimi ila tawalifi yaquudu llaahu asraara laa ilaha illa llaahu zalika fadlullahi yuutihi alladi yashaauhu wa qaala lii qul bii lusi Sëriñ Tuubaa kenn du moom qul bii lusi wa qaala lii qul bii lusi mbooti alxuraan ak secret alxuraan ak mbóoti laa ilaha illallah moom lay sëriñ bi dëxëñ ci biir mbóoti xasida yi ak julli ci rasulullah yi alayhi salaatu wasalaam raamat xasaidi li zil mazaya zi jawaamihil kalaam foofu la rasulullah yi toll bi di ko jóor guddi ak bëccëg suba ngoon ubaayoon al yowma rasul bi xidmatin wa asalullah al wafa axaqu jumlatil wara bil xidma bin nazmi wa nasri rasulu rahma xasida yaa ngi noonu wallaay dëgg la sëriñ bi bu ñëw loon dara du ko jar inna alladina taallaqu biya law laa taallaqu biya la daxalu naara walaw baxda suwayatin qabla duxulihimil janna allati wudal muttaquun mhm. sëriñ Tuubaa nee na ñu dajeeg man jamono gëm ma ànd ak man ma di seen sëriñ suñ ma fi bàyyi woon wuti beneen sëriñ bu dul ahmadu mhm. danañ dem sawara bu nuppi door dem àjjana sagam danañ dem àjjana xasida yaa ngi noonu kon mhm. maa umidaadi wan jiraaru xarami bihi wa ahnaani ani taallumi diggante bu ne yoot xalima gi ak bu koy cëpp ci daaji sunu borom du ko nag daxuus wax Sëriñ Tuubaa ndax yonent ga mhm. ba sunu borom di la wax yu wax ci yonent lañ ko xame mhm. mu ne lub bii mu nawwarun bi nuurul wax yi wan qaadili xeyrul ulumi mu yii sëriñ bi kenn xam lu mu doon dëgg la sëriñ bi kenn la rabbiya jaadali bi maa lam yaxturi bi baali saxsin muxjilan lil matari li daw ci samam xel ak xelum ku yàlla bind li yàlla def ci sama jëm xajul ci xelum doomu aadama déedéet rabbiya jaadali bi maa lam yaxturi bi baali saxsin muxjilan lil matari sëriñ Tuubaa amutu yoon mboot yi sunu borom yeeg secret mi la ko sunu borom ubbil. mbóoti yeeg secret yi. mbóoti ak secret yi. moo waral xaside lu war di ko xamle. ak li ci nekk mat munul xasiya mat naa mu wax ni sëñ Ablaye. laa yasukku fii kawniha kama katabtu. illa kaafirun billahi al ahadi samadi allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. nee na mbooti xaside yi ak oh. secret xaside yi mm-hmm. oh. ak li ci nag mm-hmm. lum rëy rëy rëy rëy ku ko weddi mm-hmm. weddi nga yàlla képp ku weddi sama xasida wax ji lum rëy rëy rëy ko weddi weddi nga yàlla ku ko weddi weddi nga yàlla laa yasukku fii kawniha kama katabtu illa kafirun billahi al ahad al fardi samadi lam yalid walam yulad walam yakun lahu ahad xasida yaa ngi noonu xanaa xamoo ne yi malaaka yi duñ ko peese mënuñu koo nat amul distance mhm. xasida yi nekkul ci poids taktubu lil amlaaku fii ma xustu ujuurahu wa biridaahu fustu xasida yi leer gi dañ koy juur mu jëm péncum yawmal qiyaam mhm. sëriñ Tuubaa nee na niltu ujuural anbiyaa wa rusuli wa sahbi wal amlaaki inda al mursili yenent yi fañ leen di anbiya u fañ leen di faye malaaka yi fañ leen di faye borom jamono yi fañ leen di faye sama yoolub xasida yi lay dikk sama ndab sunu borom sotti Sëriñ Tuubaa foo jëlee loolu ak tedd nga jooju ku la ko may mu ne borom def na ci man ilayya qaada allahu ilmal anbiya kal awliya wa rusli fi nayliya ilmal anbiya billaahi liggéeyub xasida yi moo ni toll mm-hmm. xasida yi mooy lépp. moo na xamal dara ji Serigne Touba. moo na xamal tedd ngay Serigne Touba. keroog mu wax ni. awwalu mabtada bihi alxadiimu. taalluqun bi man lahu taqdiimu. summa azhara alxidmata aama jeesisi. wal qalbu admaraha aama asasi. munsalixan fii jeesisi. min xayri rabbil wara xadiima usni xayri ba keroog mu wax ne. min baadama sallaytu duha yowmi l isnayni irtadaytu jiwaar rabbi keroog mu julli yor yor altineem boobu ne tànn naa dem fekk sama borom waaye nag min zalikal yawmi ilal jinaani axasuma tayibal yi janaan yi Serigne Touba ba keroog 75 ans mu dund mooy zéro faute. zéro faute zéro faute. arsi abdan lahu bihi wa ma qalbi bi dasa taqayudi zéro mooy Serigne Touba. Mhm. xaside yi ñuy jàng. Mhm. mboot mi ak secret yi ak leer gi mhm. mooy ñett di njëriñ ñi mu dikk fekk suñu ñu di ko jëriñoo tax ñu ko ko liggéey mhm. yaquudu lii bila xurujin lil qura naf al qura zanuslin ma al qira mhm. nee na ku ko mën liggéey ak nationalité bu ñu ko mën liggéey dana ma fekk fii man ahmadu man bila xurujin al qura <laughs> ba yàgg mu ne akramani bilaa xuruji badani min watani bi nafi ahlil muduni mhm. sun borom dana ñoo day njariñ ak fum mu mën a nekk mu fekk sama fii fi Tuubaa te sama jëmm du génn du ko wuti ahmadu lu la ko may tafiqtu unaadi al mustafa zaata addubi ci ay teggin rek laa jaar sunu borom jaar fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ko jóor dëkk ko way rek dëkk ko ci ay teggin laa jaar Moustapha fekkoon naa fi ñu doon tagg kaabun wa xasaanu wal buusayri qad bara'u wa kulluhumu nuuruhu sirrun wa asraaru fa mablaghul ilmi fiihi annahu basarun wa annahu duunahu aqlun wa afkaaru ma ne leen falaa taqiisu bna abdillahi bil fadala inna alkawaakiba yi moo dàq ci réew mi ñeent azaltal balaa wal jahla wal ana wali xutta yaa muxtaaru ma taaba min xinaa xasida yi réew muñ koy jàng azaltal balaa balaa day teggi balaa bii nuy coow mu rëmbi àdduna Sénégal mucc na ci bu baax a baax a baax leeru xasida yi rek azaltal balaa wal jaxla ak réer réer guy waral dem sawara sëñ Tuubaa nee na ku ànd ak man doo ko def wal faqra ak ñàkk bay dund xobi garab ñàkk bay mëkk suuf sëriñ Tuubaa nee na réew bu ma nekk ñàkk jeex na fa wal ana ana mooy coonoy àddina ak coonoy àllaaxira réew mu ma nekk loolu jeex na door a wax ne wali xutta yaa muxtaaru maa taaba min xinaa la mu gën a teyle ci ay koom ci sama loxo la koy teg sëriñ baa ngi noonu la haasa abdullahi xaadimu rasul dunya wa uxra ismatan wa xay rasul liggéey baa noonu mooy mbootum xaside lim def Mouhamadou Lamine ibni cheikh il dafa wax Cheikhul Xadim ne ko ilayka wa illa fa najaa'ibu fi taab xadima alladi xalla bi xullatihi kaab yow de dafa mel ni kaabu ma daan tagg rasulullah yi xel mu ñëw moom ko daan waaye dafa mel ni yow mii yaa ko joxoon xel mu rafet moom daan tagg rasulullah yi sallallahu alayhi wa sallam walil xajju miqaatun wa xajjuka daaimu wa laysa ila shahri jumada wala rajab qataatu ilayka albahra walbahra antahu wa qaatihu bahri nahu bahri min al ajab wa jubtu min al mawmaati maati daqat uhu wa duunaka mawmaatu naje lan tujab dafa mel ni yow eh, aj màkka dafa am diggi ak tabaski waaye yow njëriñ li nga yor ak li yàlla def yow ci secret ak mbóot dafa mel ni yow amoo diggi amoo tabaski waxtu wu ne nit ñaa ngi dëlëf dëlëfi rek wa min kulli waadin yansinu min alxadab wa min alxadab di dul ko ci ay tur ay xur di yëg ci ay tund di la fekk si yow Cheikhul Xadim sëriñ bi sëriñ baa ngi noonu daan ko nag yow dafa mel ni sax ni nga gënee nit ñi ne kaaba gi gënee tabaxi adduna yi yow sëriñ Tuubaa ni nga gënee doomu aadama yi ne tabaxu màkk bi kaaba gi gënee tabaxi adduna yi yow sëriñ Tuubaa dafa mel ni noonu nga gënee doomu aadama yi xasida yaa ngi noonu sëriñ bi nag tolluwaay boobu mu toll digganteem ak boroomam nga xam ne fa muy toxale anqulu min al lawqi wa min qalamihi wa fii xurufi lam amin damay toxale ca lawqu léeg-léeg ma dem ca xalam toxale fa wa fii xurufi lam amin lu ma bind ci xasida yi jànguma juumuma lu ma bind ci xasida yi jànguma juumuma waaw bind lii parce que bu sëñ ne amoon nañu doj woo xam ne kuñ jàpp teg la ca kaw jinne yi doj wax daldi lay féer ndegam doob xiiramu jaam ñi borom Tuuba teg ca kaw yow jinne doj wax daldi lay féer borom Tuuba amoon na doj wax xam ni jàpp teg la ca kaw baati lay fiir ndegam doo kiiramu ñi ku sopp sëriñ Tuuba loxo ca ku ko danga gudd fan lu ole daldi lay fiir yow borom Tuuba amoo moroom sëñ Bamba amoo moroom aa ah, naas la boroom yow yaay ramu ñi moo moroom masa am moroom la wax borom yow Sëriñ Tuuba amoo moroom Sëñ Bamba amoo maas aa jawastu naas la wax borom yow yaay ramu jaam ñi wax borom yow borom Touba yéen gaa ñi wuy ji leel Cheikh Bamba woote na daa yore e njariñul la duna ndax mooy ramu jaam ñi Sëriñ Bamba woote na yow ak alaaxira borom Touba deful waxul lu tax bu génn réew mi yàlla dogal ci moome mu génn réew mi ku sopp Serigne Touba loxo ca kaw bàyyi Serigne Saliou wala ci moom yow borom Touba biro ba moo fa man doj wiir wiir moo fa man tundu jeewal ak sarsara xam na li mooy ramu jaam ñi Sëriñ Tuuba mag borom Tuuba magaleel borom juuma jee biro ba ca Ndar moo fa man doji wiir wiir moo fa man tundu jeewal ak sarsara xam na li mooy ramu jaam ñi yeewu borom Tuuba jeewal saara saara xam jeewal saara saara ni mooy ramu jaam ñépp sarsaara yow la mu loolu man naa mu def loolu man mu defu tund jeewal saara saara loolu man naara mu jaamil saara saara yow sëriñ saali woo ña gisoon Seex Bamba nee nanu yow la yow la yow naa yaay ramu jaam ñe ku sopp sëriñ saaliw borom jannatu maxwaay yow la yow la sëriñ saali woo ña gisoon Seex Bamba nee na nu la yow la yow la gëm naa yaay ramu jaam ñi